naa jàngeen jëf su ko defee ñu xam ne yoonu nawet la waaye nag ñu sant ñëpp ñu ngi siyaar waa dëkk bi yëpp nag di leen balu ak ci màggal bu tedd gi di wax ne def nañ ko ci jàmm àgg na ci jàmm yàlla na barkeb xaadimu rasulillah wàcc ci funjuñ ak li ko wër ci kër ba ci lal yeeg néeg lépp lëg yëf yeeg yëngatu yeeg lépp ci barke laa ilaha illallah ndax kuy sant ñuy dolli la ñu wax te Serigne Touba daf nañ ko ci santale boroomam yaakaar naa ne loolu am nañu ko wax waaye itam am na lum ci wax itam ci màggal gi kon ñaar yu ute la benn bu ci ne nag gën na ci nit su mënee boole ñaar yi moo gën benn bi mooy ban daf ne ku màggal suma bisu tukki bi aj nga omra nga am nga yool ba te gis ne Touba soo fa demee it ak xikatan man nga fay dem ba magal gi jeex so dikke suñ la ne fan nga omra wala fan nga aje ak yool duñ ci am fan nga koy jëlee dana la réer te yalla it su la séddee wala nit suñ ko te sédd ba xamul suñ ko ko tegal te dootuñ ko ko wan ndax tax nañ ko ko ba pare su me ci sédd ba du ko jëriñoo man na caay bokk nak way du bokk ci ñako te kaddu Serigne Touba lool la parce que du waxantu te wax joju dafa rëy kep ku magal sama bis bi ak foo meuna toll la wax magal ko fo meuna toll waxu Touba bisam la wax bisam Touba du benn Touba dëkk la ci kaw suuf si la ne bis binduñ ko te kenn sañcut fa bis jagle yàlla la bis booba nag moo de bisub màggal kon nit ñi màggale nañ Touba waaye Serigne Bamba daf ne ku màggal suma bisub tukki bi kon bis boobu le du Touba Touba du yoonu Touba parce que dafa jéggi woon Bawol jéggi Sénégal ne damay tukki te ku génn sa dëkk ne yaa ngay tukki d'accord nañ ne dog nga yoonu tukki ku génn sa réew d'accord nañ ne jox nga yoon yoonu tukki te génn na këram génn dëkkam génn juddum génn réew kon kooku bisub tukki mbala wax ne képp ku ko màggal aj nga xomra nga xam nga yoon ba fan la ñoo fekk loolu Touba maa ngi koy laaj murid yi murid bu ko xamul nag sa màggal nangu parce que loolu la Serigne Touba tamponné bis bam boobu ku ko màggal laa wax du ma bis xaj nga xomra nga xam nga yoon ba nga barke laa ilaha illallah ku jógee Touba soo dikkee mën a war ne añ naa xomra naa xam naa yool bi teg ko ci taabul ji gerte si taabul nit lu ma amee da koy wane bu wér ñii ñëw ne Serigne Bamba nee na nañ ko ci sant la yàlla ci bisam bii te dama gis fu Serigne Bamba bind ne waskur rabbaka fii nafsika nit su ne sant yàlla na ko sant ci boppam loolu la yàlla wax loolu la Serigne Bamba bind waskur rabbaka fii nafsika kon est-ce que Serigne Touba moo wax nañ ko ci sant la yàlla te sant la yàlla xamul fenn alquran indiw ko hadis indiw ko si waxu ko sëñ Bamba waxu sant na yàlla moom ci li mu amee lii te yàlla ko fay ca cant ga waaye yow xanaa Touba suñ fa demee kon alhamdulilah Serigne Touba lañ war a bind su fekkee dañ ko tee sant la yàlla buñ wàccee kaamil buñ julli buñ naafila buñ def dara nañ wax alhamdulilah Serigne Touba. dem ca su fekke tiant la waya mbok yi est ce que la fa des mo taxone Serigne Touba am bis le deg na wacc nañ fa ay kaamil baax na est ce Serigne Touba bi muy dem te tukki ngir am li est ce que alquran toppoon na ko loolu nit ñu baqal alquran top ko parce que booba tas na ay bayam ne ku jang andi demal. poids bi ci yàlla indi toogal kooku tasaare woon na taalu jàmm kon lu tax alquran tey ñëw bokk ci màggalam wala alquran dafa bëgg a tuub wala dafa bëgg a jébbalu doon taalibi mu su ko bëggee dox na ñëw dem ca xalifa mu teg ci yoon mu door a bokk moom laa yàlla jur fekkee a bokk si léegi yaa ca war naa dégg parce que sëñ Bamba bi ay mbokk ma doon wàccee kaamil bët bu set. te ñaan yàlla bu mu del xanaa kaamil bañ doon wàccee ne ñaanal yàlla bu mu del si du alquran kon alquran bokkoon na ci ñu song Serigne Bamba ngir bu mu ak mooy dëgg Serigne Touba wàññeeku ñëw waaye nag alquran nag dafa gore rek la mën a demee force mu def xam nga lu tax parce que Serigne Touba moo jël alquran segg ko de ko rëmm de ko rëmm de ko liggéey de ko ba defar ci ñetti sept tonnes ci benn kaamil bu matul libre te ñun murid yi ko wax su fekkee loolu dëgg la kenn gëntal naa nga alquran Serigne Touba moom te ñu ko doon ñaanal yàlla bu mu delsi mu ne ba may dem dama rocci mbootu alquran yóbbuwaale te bi mu dikkee delloosaat ko ci téer alquran sëñ Bamba ne na mbootu alquran la rocci woon yóbbu moo tax luñ ko ci ñaanaloon du am waaw waaw bu wér parce que loolu la leen wax su ngeen ñaanoo ci barke su ma barke li ngeen ñaan nangu waaye booba ñaan ci barkeem abadan parce que dañ noonu Serigne Ba te ña doon jàng kenn jógewu funju ña doon jàng kenn dëkku dam ña doon jàng kenn jógewu barke laa ilaha illallah kenn jógewu nirin kenn jógewu ci Tiwaawan ña ko doon def Tuuba lañ dëkkoon njaay dëkk ak Serigne Bamba bokk ak bañ ko ba tëdd de ko ñaanal yàlla na dee ci àll bi billahi wallahi tallahi moo tax mu ne yu fadilu man fuddila laa min jiyaati ansaabi li ummi wa abi lan ni diggale ni nekkul ci askanu bàyyi ak yaay ñu ne ko lan la mu ne bi diini waxee mi kon ci diina bu tegee ci xam-xam la Serigne Touba gënee ay bokkam ci la gënee suma baay ci la gënee baay ñëpp sëñ Bamba laa wax ci la gënee suma sëriñ ci la gënee sëriñ yi ñëpp doomaram rayleen seen damuga borom da aca ku def li sëñ ma def kaay man kay werante waamu ko ku ko def rek kaay xam nga démb maa ngi ko wax juróom daal trente neuf maanaam jàng ba nekk afisu alquran kan fóoli ñu yóbbu leen daal kenn ñi biwaatul sa dëkk te benn bokk jooyu ñooñu fu ñu leen jullee fan lañ leen sàngee fan leen sulee fan lañ leen fitaawo ana kan moo leen ñaanal te ñu di ay julli te tàbbi lañ safar parce que fii ci Sénégal lañ dee fu ñu ne man dégg ma wax Tiwaawan ne suma mbokk bokk nañ fu ñu ji benn mbokk mbokk kenn fàkkawul ko ci këru diine ne suma mbokk bokk nañ te 39 marabout te kenn du étranger Serigne Touba de dem fañ ku wàññeeku dikk ñibbaat ci ay mbokkam ana ñu Sénégal ana ñu na ko Sénégal bés ànd nañoo seen alquran ba ak seen julli ba ak seen kaamil ba tàbbi naari jahanam man jàmm maa leen ko wax na ay ay waaw waaw fa waylun lil musallin bañ bind ca alquran moo leen fa fekk boole leen ak boppam tàbbi safara ana sëñ ba nay xool jëmu juuj ba muy dem soo gisee ba sikkaral ko asbi allahu moo ko waxoon ba mu tàggoo waa njaari mbokkam yi da leen jox gannaaw dafa taxaw jublu ne leen hasbiya doyloo na allahu yàlla tax nañ ko faw ñu ne ko bamba fan nga ko doyloo mu ne wala ilaha illallah te lii ma leen wax maa ngi dem maa ngi ñëw lii la bamba waxoon kan mooy Serigne Touba ay ku fa sa bàyyi def danga xam ne caaxaan baaxee. parce que laa ilaaha ama danga lay waaye doo lay liggéey lay jik xala kàcciri rek parce que laa du caaxaan maam nit nit nañ seetlu nit nit doomu aadama yi dañ war nit nit ko am juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer yu topp fañ la tëj kenn ñëwu fa may la ndox fóotaluñ la togg jox la nga lekk deewoo maroo yóbbu benn mbubb bu wex fur te amul taas barke la ilaha illa ku ko man ku yalla yàlla man jamme mako wax kenn ku ne sa sëriñ su fi mu bu legi mu summi ko nekk tilim sëñ Bamba sol bu wex tan juroom ñaari ak amul tas mboot sax sa wut laa ilaha illallah kookoy kan kookoo ne dalaa niye dañ ma allah yalla halal xalallaahi ne ma ki mo de yalla bila taqarurin ta amul woon waxoon sama dund bi taq yalla ya daf ko nan bu wépp barke Seex Musaa borom daal foofoo topp yonent bi topp yonent bi bam jeexal mu wàññee ku ñëw ci Muhammad topp ko boo xam ne wax mu leeb la Muhammad amoon leeb la yonent bi amoon leeb li Moustapha am leeb li nabi am leeb li malaayika yi am téyel ko boppam te lim yor kenn téyewu ko moom kookoy xaadim rasul billaay wallaay tallaay lu tax ma ne mu topp yonent def ne aaray tamit war nañ ma siru rasulillahi kenn ma sagu doon topp yonent ba am siru ba Sëriñ Bamba ko bind aaray tamit war nañ ma siru rasulillahi wa qaala laa ilaha illa allah kon topp la yonent ba jeexal parce que yonent ngi am ci siru mu wàññeeku ñëw ne dalaan yàlla wax laa Muhammad yi yàlla tegtal la ma Muhammad wa qaala ni Muhammad ci Muhammad li sama di ba seen yàlla waaye àgguma li sama di la wax ba ma jàkkaarloog yàlla ñu ne ko ndax loolu doy la mu ne ba ma ca jógee ne ko nañ dem mu ne mënatumaa dem ma xat ci Mohamed Diimu ma bakk ci gannaaw yàlla naan ma kaay ma ne ko laa yàlla a bilaa taqroor yi waxam rek taqma maa ngi tegtalu jëm ci yow soo buusewul yow yàlla du ma buuse soo dumoyu du ma dumoy moog yàlla moog yàlla moog yàlla bañ dëppante dënn ba ñooy dëppante dënn Sëriñ Tuubaa soppeeku siru roofu ci dënnu yàlla ne ca saraax siru ba bëgg a doon leneen Sëriñ Tuubaa soppeeku bu wér ñu ne ko yàllaay jàmm ñi mu ne ca asal lañ ma ko tuddee ahmadul xadim weesu naa aadama ci doom koo koy sëriñ Tuuba kon mbokk yi bis bu mel nii soo amee nañ wax nit ñi di ko waral du julli du koor du natt asaka sëriñ Tuuba demutoon pour julli sëriñ Tuuba demutoon géej pour koor demutoon géej ngir alquran demutoon géej ngir yonent demutoon géej ngir Moustapha demutoon géej ngir nabi lañ sant Moustapha ak Nabi ak looloo ko taxoon a dem moo de la mooy wéetal yàlla lii ay dëgg wax ne Serigne Touba leneen yóbbu na ko lu dul yàlla waxoo dëgg nañ ko baqal de moo tax am murit dafa war a xalaat Serigne Touba fan la ñu woo gis nga Serigne Touba xamul muritu dunya kon nañ baal lëkkeel Serigne Touba ci àdduna ne fase naa àddina jublu yàlla te dootuma xàcc kon képp ku naan maa ngi liggéeyal Serigne Touba ci àddina bi yaa ngi koy daf ko fas yoon jublu yàlla ba ko xam ne ñun taalibe wax ne ñu ngay liggéey ñu suñ yoonu tariixa murit ñu koy liggéey ndax taaral ko wala yokk ko waaye ñu ngay liggéeyal Serigne ku ko wax waxoo benn tëb ku ko mën a liggéey kan nañ ma ko wax ndax kenn du ko liggéeyal ci suuf ci àdduna moo ko wax desu naa àddina jublu yàlla te dootuma xaj kon am murit fan la jëm muridu Qur'an sëñ Bamba bind ko fen muridu juma sëñ ko ay na muridu jàkka sëñ Bamba bind ko ay na muridu alquran sëñ Tuubaa bind ko ay na muridu yawmal qiyaam sëñ Bamba bind ko ay na muridu ajana sëñ Bamba bind ko

ku leen ko wax dëgg tegal na loolu leer isil muridu laa yuridu abada xayra ridaal rahman waay su xasaba la war a doon it te njëlbeenu murid mooy mu làq ngërëmu boromam ki làq ngërëmu boromam dana yaakaar ci Serigne Touba nan ko benn ala xam nga lijjanti fa àjjana àjjana benn jaam di ko lijjantil kenn mën nañoo lijjanti yàlla jox ko jaam jaam mën naa lijjanti dëgg jox ko morom ka mën naa lijjanti xam-xam jox morom mën naa lijjanti leneen jox ko morom waaye àjjana kenn ko lijjanti kenn parce que man amuloo xaalis fa dina kenn ku ne la nga jëf moo la bàyyi xanaa yàlla waxul yow nga nekk ci jëf ju la neex ba pare de natoo sëriñ Bam fan lañ ko teg kon bis bi bisu màggal la ci niñ ko waxee amul nag ku koy màggal am màggal te làqoo sekkare laa ilaha illallah ku ko làqu damoo màggal bu nag kon ñu ngi leen di wax jaageen jëf ak lu badal lii na bés bii su ma yeboo ne tàmbali ci nii mu ngi njëkk a ci bàyyi daam ak bàyyi aqiqa Cees parce que ñooñu ñoo ma njëkk a woo ci lii njëkk fee takk ñëw waaye fekkoon na ñun ñu da def def bu wér waaye dama daan defaree rek ñu kii rek ma tàggu waa dëkk bi waa kër ga jox leen meew ne leen man dugg naa àll bi loolu lañ daan màggalee bu jàkk ma ne leen nañ leen jàpp gis nga ku jàpp te mu de dëkk lu mu yàgg yàgg yàgg am seede lii seede la te déwén la jëm fu ñu seede boo pare màggalu Tuubaa dinaa ko indi fii mun ba danaa ko indi de waaw waaw Serigne moo ne nañu am fulla gannaaw Bamba ne foo toll màggal ko te yàlla tax fay nga fekk la fa man kay duma génn Foundiougne fii laa koy màggale fay gi fekk ñu Foundiougne teg waaw ñun ñëpp ñu bokk man fii laa dëkk parce laa ilaha fii laa koy màggale man lu ma roñee ci yónneen teg sëñ Bamba fii rek waaw waaw fu man di ko bokk fu manu nag a ah, jàmbatoo buñ ca xuloo buñ ca def dara manoo manoo waaye su njëriñ dikkee bokkal su barke dikkee bokkal su njëriñu dikkee bokkal waaw bu wér a wér a sula la neexee nag bañal ba tëdd waxal lu ne jërëjëf barke la ilaha illa man dama maa wax képp ku def doomu adama ci adina su fekke yore na la dara ci ak jegal na la ko barke la ilaha illa parce que rusna naa yowmal qiyam yalla taxaw doomu adama nit ko man taxaw yalla naan ma ki lim la yore kera man dee ci kera la de do a dee man kera la de do a xona ci kanam yalla mo xamna ni yalla manuma ray lo rek la ma mënoon ray lo te lo du ko dem parce que yorelu ma ko képp man xamee lu ma képp ak jégal naa ñëpp mbokki taalibe yi mbokki ak lu bala naa jégal naa sumay noonu lii la Bamba bindoo su fekkee moom la ñuy moom la ñuy roy nag nañ fexe noonu taalibe bu mat taalibe dëgg xolam bi dara du ci nekk du jàmm ndaxte laa ilaaha illallaah ay ay ñun sonnuñ yow yaa ngi solu lekk ba suur nangam man di sol lu rafet ah te dox dox bi nu la neexee su la neexee cëgin su la neexee cakas su la neexee raasi raasi yow loo leen mer lan bi lu fi jar mer yàlla mi mu sonne te nit ñi dañoo dox mais nit ñi dañ nañoo dox si parce que man dama yaakaar ne xanaa kenn mënta def dara ci barab te neexoo fa wala de waaw seetal li sax ci biir ñax mi ci dëkk ci kër yi ci bunti néeg yi ku ko fa saxal yow yàlla ñëw ba sa buntu mu saxal fi ñax nga yàlla kenn du ko fi gis te yow mënoo ko sa baay mënu ko sa julli gi mënu ko sa maqama mënu ko sa kattan mënu ko yàllaa ko fa def yàlla ni mu dikk ba sa kër saxal fa ñax te yëgoo ko yaa bon war naa dëgg di bay mu de la xool nga bay ñaari fan ñett fan mu dellu dikkaat saxal te nit ñi ne mukk yàlla moom new fi man de jaaxal na ma ndeysaan looloo taxoon ndeysaan Cheikh Ahmed Tidiane kamaalul àq ba moo tax mu noon jàmm ni yàlla ba te sori nga yow jàmm ni bi xurbin ci jege gin ma jege waxta tam ta nëbbu nga ku ne bi suuratin ci feeñ gi nga feeñ ci ma fa yaa ajaban man yéemu naa min baatinin yàlla miñ nëbbu foo woo moom saayiru mooy li nga janob kooku yeena ci yàlla ku ne kooku laa wax kàddu googu ku dofu yeena la bu Serigne Touba ne fa kullu man raa si wàllaay ahadum lépp looy geesu teg ca bëtam na ko wóor ne si wàllaay ahadum desag yàlla kennam na mu ne su ko ca gisul rek mu ko tuub waa ahlu bana kon yàlla la ñu seq muy laa ilaha illallah la dajale woon Cheikh Rafal ak Serigne Touba ba tax bisu màggal am loolu ahlu badar moo ñu dajale tey funjuñ bisu màggal am mooy lan muy laa ilaha illallah jàpp ndaw fóot xol ba yar ruuxu jël dundam jël maqamam ak nekkam te yëgu ca dara nga rocc ko ba mu baax nga roof ko ci borom baax gi te ba ko fu fëggee yàlla wuyu ko te yàlla ko wër fu ne te du ko xafal parce que su ko defee ci poos sax dem ñun yàlla sax ci poos ñu demoon moom waaw waaw Cheikh Abdou Khari Jeelaan daf noonu yàllaa ngi ci suma poos bi maa ko jubba ci ilala suma poos bi yàllaa ci ne ñu ne ko la ilaha illa tey nga dee kaay war wan ñu ko mun nuqul nuqul ci poos bi génne dagg ci ñu ne ko ñu ne kii dañ ko war a rey dañ ko yow yow dañ la war a rey mu ne leen déet def leen daan ñu naa mu ne leen lii nii ban jàmm moo mën a def dara ci àdduna moo mas a def dara ci àdduna ñu ne xay àdduna kay li fi ne yëpp yàllaa ko fi def mu ne kon bi yàllaa koy def waaw dëgg la kon ñu bokk ko borom bi subhanahu wa taala euh, cant gi neex na gi neex na bu wér ñu ngi leen di wax ne mbaa xiifu leen rek mbaa xiwal yi lépp mat na waaw waaw sëf ma jóor leen ma du tee dinaa ko def de barke Cheikh Moussa kon ñu waajalaat ko déwén bu wér nag te am ci fula gis nga su ma sanga tax ma da ko def parce que la ma ko waxee démb biñ ko koy jox Touba ndigal suma kanam la maa ko seede bu wér ñu jox ko ndigalu màggal màggal Touba daal délégation bi daan jógee Touba maa leen daan xaar ak si yóbbu leen ban dalal leen ci rajo Cheikh Moussa suñ daan ñibbi di sikara bañ dugg ci te ci ba la ñu kon xamoon na ndigal bu wér parce que kii xalifa jox ndigal ba pare bis bi jot mu xañ màggalu Touba mbooloo moomu yebal ko ñu ñëw daal loolu cër boobu xam koy jóge na parce que laa ilaha illallah te nii la téléphone bi ñu Touba fay war nga kap maintenant Serigne kër Cheikh Moussa la xalifa Serigne Touba taal otom a jaadu na seede seede bu wér ku la ëpp yitte ci yoon moo di jëwriñ waxu ñu ne kàlla mu ne Cheikh Moussa jë jëwriñ xalifa bi waxu na ko benn murid dindi tey dootoo fi soor bay laal man suma Serigne Cheikh Moussa xalifa Serigne Touba nee na mooy jëwriñu yoon wi kum neex kum naqañ moom waaw waaw mooy jëwriñu yoon wi waaye yan murid yi maa ngi leen di xamal ne maay sekkare jëwriñ man njàmme maay sekkare jëwriñu yoon wi bu bet parce que man ma fàtte bu bet waa ji Moussa bul fàtte waaja ca Touba su la fàttoo saxal ca lam santaane soo koy fàtte fàtte mu fàtte fàtte lu sëy kon war na foog ko foo toll da ko waxtaane waaye teg ca xalam yàlla ak ngor mi naan faskurooni askur pour fi sóorate yàlla pourquoi ñu am faskurooni yàlla dañoo askur pour ñun duñ sant kon nañ sant ñu ngay sant yàlla yàlla ngay sant ñu ngi koy tudd mu dina tudd mooy dëgg ñu ngi koy defal lu ne mu ñooy defal lu ne te bam ñooy defal defalaguñu parce que ñun ñi kenn ku ci ne dund nga ay at ta xamoo fu la yàlla féete kon doo ko defal mooy dëgg kon nañ bokk jàppat ci jàmm fu ñu yàlla fi yàlla wàccee xiwal wàccee ko ci képp ku fi ñëw ci doole laa ilaha illallah yéen ñi fi ñëw nag badrin yi fi ñëw yéen ñëpp xoolal leen ma leen yéen ñëpp yéen ñëpp nag maa leen da wax rendez-vous déwén la man sax su ma fekkee wu baax na waaye yéen ñëpp da ko fekke xanaa ku dem bitim réew waaye ku demut bitim réew rendez-vous bi déwén la soo dikkee ne ma ñëw naa ma yokkalaal la sa dund barke xaadimu rasulilah darajaay Cheikh Fallou Mbacké man lu ma wax ni na ko wër léegoo leen ma jàdd ci mbooy na xaw a def naar tuuti kàcc tuuti xam naar dafa xaw a kàcc rek tuuti léegoo leen ma def yëfi naar dugg ci mbooy waaye bëriwul nag ay su ngeen ma jàppee melokaan ngeen du boobu de affaire bi laa ilaha illallah ma xam kon nañ ko nañ ko waye nañ am jam, nañ am salaamatal nañ am yaatal loret rek la leen di dénk wallahi li ma leen di dénk ba leen ko xal gis nga jam jamono ñu toll yalla yalla bu ko am noflu billahi wallahi kala gis nga yi ni bu ñu déranger du ko du ko ay million ay milliards déedéet li affaire bi li mu la ah, la la yàlla la kay yàlla la lii yàlla la laa ilaa